waa ji loolu dina maa ngi fay si loo nekk ah. yaa ngi yaa ngi toog nii mel ni ku ku amut liggéey xanaa sa koos bi. man jeexal naa suma koos bi waaye maa ngi bugg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a maa ngi toog. xanaa demuloo inko. <laughs> lan mooy inko. da nga bugg a xam lan mooy inko. waaw jógal ñu fii inko soo ñëwee suñ place. looy njëkk a bàyyi xel mooy. mooy inko. maanaam IMG CO. waaw kay am na nag ci dëkk bi fii. village yu bëri ñu ngay jël suñ bi di ko mbuboo waa pire pire ji fii la bu ko jaawaale hmm. soo ñëwee rek seetal brand bi hmm. lii mooy di impôt si nekkee kapinta nga hmm. maçon fiita mécanique bi sax kaa ñu dugg boo waa ji de lii mooy impôt Sou fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee traffic light ñu ngi fa amee tamit beneen branch maanaam Sukuta traffic light am nañ benen branch am nañ benen branch ak Inco aduna bi mu ngi si again uh, welcome back this is another Korka Street Talk suma gaay bii tamit nag beneen Korka Street Talk la so ñu ngi génn si town bi nag ñu xool ñan la ñoo waal hello hi how are you I'm fine what is your name Yamu Ndaw Yamu Ndaw yes okay if if if a president if president wife is called first lady how about if the president is a woman how do you call her husband the husband yes you will call him daddy lady huh? yes daddy lady Daddy lady. hello. naka waa ban. ñaan naa la rek. naka waa ñu ngi fine. yaa ngi ok. waaw ok benn si bul collection la am pour yow. Eh, yaa tooy naka. <laughs> Sali laa tudd. ok Sali euh, la wala fruit la. si nekk si nekkee président bi. Euh, euh, jabaram ñu ngi ko lady si nekkee président bi jigéen la noo ree ooyee Ei, eh, korkaava. What is your name? you want If the president's wife is called a first lady, how about if the president is a woman? How do you call her husband? King. watermelon a vegetable or a fruit? It's make it a fruit? ah. Um. thank you. hello salaamaaleykum bro naka. yaa tudd naka. man Moussa Diallo. Moussa Diallo. Moussa Diallo su nekkee président bi jabaram ñu ko ooyee fausse lady su nekkee président bi góor jigéen la noo dee ooyee jëkkëram. Ah, su fekkee ne président bi ñu ngi ko. su nekkee président jabaram ñu ngi ko ooyee fausse lady. su nekkee président bi. jigéen la noo dee ooyee jëkkëram. ah ok ok the husband that's the first hmm? man. the first man. the first man. yeah. ah ok. is watermelon a fruit or a vegetable. watermelon. waaw it's a fruit. ah it's a fruit. what make it a fruit. my brother watermelon is a fruit. what make it a fruit. <laughs> no I can't tell. ah <laughs> ah ok thank you. salaamaaleykum rona kam. fine fine. itooru. ndi Ousmane Gassama. Ousmane. yeah. nin president la muso i ka commandi first lady ah. sai nin president o ala ala ke i ka commandi ñaadi ah, la president on la di <laughs> ok sai yalo naftare yemu bukki becek fukki bukki gudi afo ban afo folo nga am fukki fukki becek fukki bukki gudi becek <laughs> Hello, assalamu alaikum. How are you, sir? Hello. Hello, sis Nakam. My friend. Yeah, ya, I'm cool. Yeah, ya, do Nakam. Mariam. Mariam. Mariam, ce n'est que président bi gour la. Ñu ngi oyé jabaram force lady. Ce n'est que président bi jigen la no wara oyé jegeram. Xawma <laughs> suma borala. Ha? Xawma. Ah. Okay. Uh, li watermelon, saro. Vegetable la wala fruit la? ah vegetable ah, ah léegi bala ma nga wax wax bii nii da ngaa repeat after me dégg nga danga ngaa wax ah, fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi waaw loolu lii loolu wax ko fukki bukki bëccëg hmm. fukki bukki guddi waaw waxaati ko ah déedéet kay woon naa ko benn yoon kay nga boo pin ko fukki bukki bëccëg dafa gaaw ah, ah déedéet kay jël lu tax yow bi nga doon wax yow gaawuloo sa bopp pour ma la fukki bukki jëgër eh <laughs> salaamaaleykum oncle naka maa ngi sant yàlla oncle yaa tudd naka man maay Assane ok oncle si nekkee président bi mhm. jabaram ñu ko ooyee first lady mhm. bi ah, ah, jigéen la noo war a ooyee jëkkëram understand ma bu ma président jabari président nuñ ko dee ooyee first lady waaw léegi su nekkee président bi jigéen la noo war a ooyee jëkkëram fekkee président bi jigéen la waaw non boobu moom ma dëgg la xaw ma naka lañ ko xaal xaal saro xam nga waaw na xaal waaw hal vegetable wala fruit la <laughs> non boobu tey mënuma ko ansa ah. definitely ah ok waxal ah, ah, waxal wax bi ni dafa gaaw nak. dama hmm. la ko expliqué pour mu gaaw pour nga wax ko yow mu gaaw fukki fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi ah atta oyu jeng ka pulaar oyu jeng ka pulaar ande ko collection olof mi arde ah jaraba jaraba ona netera mariama diallo mariama diallo hmm. mariama diallo be ngul lan don sa tawi ay nima fausse lady joni ah, te nollan ɗon ko debbo modi makko ko noon noddirtamo si tawi tawi lan ɗon ko fos leydi ɓeygu makko innete lan ɗon so tawi ko debbo ko non noddirta modi makko aray ko queen ka honno ka honno joni hiɗa andi hiɗa andi saro saro eyyi eh, saro ko vegetable walla ko fruit Akur kami mi ala lu ya, ngol go way fo. Lan direct. Owe. Oh, Joni Joni gasi Joni Joni apa mela ah, ah, Joni halu simi hali goddum haala do nandi. Inu inu ah fuki buki becek fuki buki gudi. <laughs> fuki buki becek fuki ah Ibo yayo ki. fel. Ya tuh naga. Teno. Teno. Teno. Sini ke presiden Jabaram nuko oy fausse lady su nekkee président bi gur la no wara a ooyee su nekkee président bi jabara naka jabaram ñu ngi ko force lady. di su nekkee président bi jigen la no wara a ooyee ah comme opposite bi rek ladies and gentlemen ah su nekkee living président bi jigen la ah jëkkëram ah force living like gentleman Wow. waaw ah, ah, vegetable living ah, watermelon vegetable la wala fruit la watermelon ah vegetable la Ah, ok léegi da nga wax wax bi ni pour mu gaw de nga mu gaw fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi waaw fukki bukki bëccëg fuddi bukki bukki waati ko fukki bukki bëccëg fuddi bukki bukki <laughs> caméra bi Ousseynou ah yee Ousseynou président si nekkee góor jabaram ñu ngi ko ooyee first lady waaw waaye léegi bi ah, jigéen la noo war a ooyee jëkkëram ah jëkkëram kor ga waaw doobi moom gën a baat ko sereku naa sereku naa bii moom nice ah, dafa nice léegi sa design bii nii bii nii bii faa rek maa jëlal bi lii na de ñaata nga ko jëndee. 500. 500 waaw. yee léegi. Hmm. naka nga tudd yow. ñima ñima ñima Gambien nga. Hmm. ok su nekkee président bi jabaram ñu ko oyee first lady. Ah. su nekkee président bi ah, lifin la naka góor jigéen la noo war a oyee jëkkëram. understand ma come again. président Barrow jabaram nu ñu ko dee oyee. Fatou Ba Barrow second lady. mooy mooy lan first léegi si nekkee ah. président bi jigéen la. jëkkëram noo ko war a ooye. jëkkëram noo ko war a ooye. waaw. oh my god. voilà. waroon na benn acapella. Eh. acapella ñu dem rek. barka baal di ma weeje rek. barka baal di ma weeje. barka baal di ma weeje. acapella may baa ngi ni. <laughs> dooral ñu ñu dem. ñii toojuñ fenn ah lu dul wax ju bari ah ñii toojuñ fenn lu dul fenn ju bari seen wax a bari fenn a bari paja bari duuli baji paji baji ey xoolal ah. kii mooy preacher man rapa yëpp am nañ problème maa ngi si yoon bi non déedéet dooral beneen xam nga féega si féeri bi parce que demal naa ka xam nga yow féega nga ba si féeri bi ah? <laughs> parce que waaye yow parce que waaye ma ne parce jinne xoolal jinne mun duma. ma ne bi. waaw moom laa ko tur moom xam na boppam. Ah. fii raab naan turakuna. Ah. prix caa ngay ñëw. Ah. di la gis lu dof. ah ok ma yow ah yow yow ma ne waa léegi ma eh. yow su nekkee président bi jabaram ñu ko ooyee force lady. waaw ah léegi su nekkee bi jigéen la. jëkkëram noo ko war a ooyee. parce que indi nga problème nag bii baa ñu ba afta. bro yaa non non non. waaw ah. man dama doon déglu Thiel. Ah, na. Ernest laa tudd. Ah. Ernest. Ernest Ernest yaa ngi góor. yaa maa Ernest su jabari président ñu ko ooyee First Lady su président bi jigéen la noo war a ooyee jëkkëram. noo war a ooyee jëkkëram nga ko président Barrow nga ko oo Mr président su nekkee jabaram ñu ko ooyee First Lady. su nekkee président bi jigéen la noo war a ooyee jëkkër bi. noo war a ooyee jëkkër bi. ah bro yow question boobu wala coow doon na waar de ah bii gars yi uyu ma keneen rek. xam nga boo tameloon saro saro xam nga ko. so waaw. saro végétable la wala fruit la. so saro xaal. waaw na xaal végétable la wala fruit la. so nekkul végétable nekkul fruit. Ah. xaal ndox la rek ndox la juus la rek. voilà sama gars yi wax leen ma tas léegi a lu ñoo def nañ dem ak advert ñu ñëwaat nañ dem ak commencé al bi rek bu roo yow yow moom toj nga fi. Ah. xam nga ne toj nga fi. a non xamaanguma ko damaa trahi nii rek. xanaa raafa nga. non du ma raafa. ah non ah ok. waaye nga jox ma benn acapella balaa ñu dem ak advert. ah acapella man ma raafa moom football laa laal. ah waaw ban tànga li ndee do ñaaree bi nga dee waaw suma gars yi xoolal faxa ñu si advert bi ñu ñëwaat nañ dem ak commercial break we'll be right back. Hello, boy. My name is Santa B. Happy day, Santa. Follow me.

su ma nekkoon président ah right now su ma nekkoon président dama change système bu bu bu right now population bi yëpp di kaas. Ah. waaw mooy poverty ak starvation bi. Oh, waaw xanaa yow yëguloo si dara yow. ah waaw ñëpp a waaw man right now su ma nekkoon président loolu lay def. léegi bro. Hmm. yow hmm. ah président. su nekkee jabaram ñu ngi ko ooyee first lady su bu góor la président bu jigéen jëkkëram na ko war a ooyee. Ah, bu góor. lu ma war a ooyee président bu góor bi seen jëkkër am jabar bi Fosler yi nañ ko ooyee. ah wax dëgg ne aw ma aw ma benn idée nag. Ah. xam du saro. waaw saro waaw saro vegetable la wala fruit la. ah man loolu fruit laa ko ooyee. fruit ah. waaw fruit la. léegi dama bëgg nga wax lii nii benn wax bu dee waa dafa gaaw nag. Hmm. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. na gaaw. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. Oh, yaa ngi bàyyoo stanga tarap. <laughs> ma ne xam nga président jabaram ñu ko ooyee first lady. président ah, ok léegi su nekkee président bi jigéen la noo war a ooyee jëkkëram. su nekkee jigéen la. waaw noo war a ooyee jëkkëram. waaw ah, non waaw moo ko nag de. waaw <laughs> ah. moo ko nag korka. korka yaay baax man yaay yaay. xam nga saro te du. saro mooy xaal. waaw waaw vegetable la wala fruit la. ah fruit la. yeah la moo tax mu nekk fruit. because of ah like. furut la daal man laa ko xamee daal. waaw ah. yeah <laughs> ma leen ni fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. fukki guddi bëccëg ak fukki guddi bëccëg ab. <laughs> bro fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. fukki fukki bukki guddi. na nga fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. Hmm. fukki bukki bëccëg fukki <laughs> walal akapelal dara ñu comme monde ah. mara président bi ah góor la. jabaram ñu ko efforce léegi su nekkee jigéen la noonu ñu ko ooyee. non naanu ma nag. yaa ngi baax ko ooyee force léegi su nekkee président bi ah, jigéen la noo war a ooyee jëkkëram. jëkkëram just you give him the respect calling him as the president. Ah. yes ah, ok léegi de ah, nga la dama bëgg nga jox ma benn acapella pour yuut si ñu like man xëj na du ma wéykat moo tax du ma mun a joxe acapella. tana laa tong. jam tong. ono ne tara. asmi jallo. asmi jallo ono ko nu tong ɗo. No man. yeah. ah yeah. ah ok fewndo onon hannde so tawi on foti jonude goɗɗo advice combo advice jonnotomo kon fight fayɓe no fight faɓɓen komi wata be advice mm. ko first time on taw ko needi moƴƴiri mm-hmm. faami wakiloɓe janga ɓe respecta mawɓe maɓɓe ɓen yeah. ok joni uh, ko français nan ɗon walla ko angale no pullar rek non kono lando lanɗo eɓe mo premier dame ka joni so tawi lando lanɗon ko debbo muudi mako ko no lando lanɗon siko debbo eh no ɗon aray ɗon hen feƴƴe ɗon mm. Mm. ok joni inne fuki buki becce fuki buki gudi fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi no yaa way seeda non yaay non yaa wone ko seeda bukki bukki guddi on jarama yetta jalloɓe ɗo wini ani menen tawi ko men hette mbaɓe gonomi e nani ok on jarama ya yoki mane yo sineke président mbi jabaram ñu oye fausse lady sineke président mbi lifin la naka jigéen la nooy oye jëkkëram ah président la ah? président bi jëkkëram waaw président la. président Barrow jabaram noo ko dee ooyee first lady waaw ok su nekkee su nekkee first lady mooy mooy mooy jabari président léegi su nekkee président bi jigéen la jëkkëram noo ko ooyee. jëkkëram noo ko ooyee. Ah. Ah. ah waa léegi bala ma nga wax nga waa li nii fukki fukki buggi bëccëg fukki buggi guddi. waaw su nekkee président jabaram ñu ko ooyee force lady su nekkee président bi jigéen la noo war a ooyee su président la noo war a ooyee jëkkëram jabari président ñu ko ooyee first lady waaw nekkee président bi jigéen la noo war a ooyee <laughs> ah, turi jëkkëram nga ko ooyee président bi jabaram first lady lañ ko dee ooyee jabar baa nekk président waaw waaw léegi di seen naas noonu nga xoo ni ah, turi président naka turi jaba ah, jëkkër bi nga ko eh, naka turi jëkkër bi léegi waal waal fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi waal ah? fukki bukki fukki fukki guddi fukki bukki guddi waal loolu fukki guddi fukki bukki fukki fukki bukki fukki bukki guddi korka man sa <laughs> non mënuma boobu noonu man maay Thiané. Thiané yaa Thiané Thiané yaa ngi ok. maa ngi fay Thiané su nekkee président bi. Mhm. jabaram waaw. Euh, euh, nekkee président bi la. jabaram ñu ngi ko oyee bi jigéen la noo war a oyee jëkkëram. noo war a jëkkëram. His Excellency. président. comme right now. waaw su nekkee Fatba Barrow président la. noo war a oyee jëkkëram. President Barrow. So dafa nekk président moo tax dafa nekk ñaari président. still is a president because of jabaram president la moom tam dafa war a nekk président. Ah. waaw kon right now Adama Barrow eh, eh, eh, dafa lady président la. waaw waaw président la. of jëkkëram président la. so moo tax président waaw. moo nekk di first lady. so loolu loolu moo ko def mu nekk président. waaw. Ah, kon first lady président nga bés na ki tey. <laughs> Ah, ok léegi ma waxal fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi mu fukki guddi. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi gaaw. <laughs> fukki fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi mu gaaw. fukki fukki fukki <laughs> kooka ñu fukki bëccëg guddi. <laughs> jërëjëf mun waaw kooka. okay, you man every time man la oh, you so mooy di first time ma waxtu thank you so much man leen di gërëm di leen ñaanal si kaw si kanam rek yàlla nañu yàlla defal jaama musu feetu seetaan lépp luy loore yàlla na fi yàlla def jaama defal ko mboolem julit suba salaatul faatiha yàlla nga am jaama ah waa kii moom struggle na eh mama. ini mbara ini mbara if okay abekulene ngo if the president's wife is called first lady how about if the president is a female how do you call her husband first gentleman First Do you know watermelon? a summary, sir. Watermelon a vegetable or fruit? Ah, come After, after, after. Okay, say fuki buki betek, fuki fuki buki gudi. You got a nye daddy. Alarba. Huh? Ah? Alarba. Alarba? Oh, yes. But today is Teneng? Yes. Ah, okay. You okay? Yes, I'm okay. Okay. If the, if, if the president's wife is called first lady, how about if the president is a female? How do you call her I Husband. what's husband? okay, now say Fuki Buki Betek, Fuki Buki Good. Yeah, yeah, no, my memory, I left it at home. You, you I left my memory home. maa ngi fi xay. ah yow wax na yow lu yow loo daw. yaa tudd na man Mariama. Mariama ne moom nga tey nga yow nga la tema correction. man laaj na correction. waaw. baalal naa la korka. baalal naa la. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. fukki bukki. fukki fukki bukki guddi waxal loolu. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. waaw waxu bu gaaw. fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi <laughs> fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi. su nekkee président bi jabaram. waaw ñu ngi ko oyee first lady. waaw su nekkee président bi lifin la nag jigéen la noo war a oyee jëkkëram. su fekkee président bi jabaram first lady. waaw su fekkee président bi jëkkëram. waaw nu mu ko war a oyee Mr President. <laughs> oh non non non. kon ka baax. Assane Assane Badji. Assane Badji. yes. Musume. ko sumbage aha karese bu nje asan kasara asan baje safa baji baji baji basen okay rong nomba man fa laa em nag waaw sa tur bi laa la ci damit rek ah man korka ya okay thank you okay asan su nekkee président bi jabaram ñu ko ooyee first lady waaw su nekkee président bi nag léegi jigéen la jëkkëram noo ko war a ooyee kon jabar bi yaa ngi ko ooyee first lady waaw su nekkee nag une tonne jëkkër jabar bi moo nekk président jigéen bi noo ko war a jëkkër bi noo ko war a ooyee jëkkër bi yaa First husband. Mm. I'm gonna go man, yes? First man? Yes. Ah, okay. I'm ready, I'm ready. No, first man, I'm ready. Walegi. Ba. Ah, ah nga watermelon, saro. Hal. Hal, wam na ko wa. Vegetable la fruit la. Watermelon. Mm. Even la di. Fruit. Ah. La moko def fruit. Ah, because melon la di. Ah. la amé di. Ah. So lu amé ndox fruit la. non nekkul yëpp fruit la waaye waxtamit ona fruit la ni ka ah, ah, waxal lii nii ah, mu gaaw benn woot dégg nga fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi wax ko mu gaaw fukki fukki bukki bëccëg fuki buki bukki guddi non boobu du ma ko mën a mu gaaw moom trayer rek du ma ko mën a mu gaaw trayer rek fukki fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi fukki guddi bëccëg fukki guddi bukkiti waaw waaw bro kuluma yayba kuluma sene ke president bi jabaram ñu har jiitu har toppa har jiital har bu si gannaaw jiital ñaari har ñaata har leen har jiitu har toppa har la tontuma har jiitu har toppa har bu si gannaaw jiital ñaari har ñaata har la loolu bàyyi doo fi dem laaj leen ko na ko tontu wakko ne mu tontu ko waleen ko mu tontu ko xar jiitu xar toppa xar bu si gannaaw jiital ñaari xar ñaata xar la waleen ko mu tontu ko na ko tontu waleen ko mu tontu ko five seconds lañ ko may ñu compté one two three four five dara munu ñetti xar xar jiitu xar toppa xar bu si gannaaw jiital ñaari xar ñetti xar la man Paul laa dégguma olof bu baax la meen kon la mu ngi chill man léegi ah waaw naka xuut bi nii nag waaw xuut bi waa a ah, gis nga ne grinding bi ak waa liggéey bi ak xam nga rek waa every time nu mu fa demee noonu la yee man yee bro léegi yow ñu tur bi man J la J Ross yee man bro léegi J Ross wala dañu bëgg a jox a cappella ah, sure if you all want ay bal ma bala mic bi sa nga waaye waaw man ma bokk bi dama bëgg ngeen xam ne man maay the fastest rapper in the Gambia okay jóge benn goda bu ñu war a Ibo Town mën di guddi jot dafa leen di mel ni yoon ground ni nga fekk ñu ko tegabal si benn bëgg a daaw waaye fokk jóge dañu mën a xam li fi xew bu ma gëlee li ma yàggate nga suma sang suma lëli dafa bëri moo tax dara gi di gaaw jóge ne Verstappen ni nga wéngi ñëw blood bi da pucc bu ne mën dafa tàpp ba ñu baaw dégg nga loolu bro ah ma dooraat beneen ah Abada nigga will travel as a favor who rapping the city no record level. Back in the bin, we're chasing a chip and a sobbing up to another level. So what I do? Utuji Hollis and listen to headers who find a little man and making a move. Wanna be hell of a bun of a hustler, got things to do, bruh. Wow. Yeah. Got things to do, man. Yeah. Well, tatu lengo, tatu lengo, bro. Hola. Ah, koka. Ah. Hola, yo right now, ah. ah yeah. Xam nga president bi. Ah. Ñi jabaram first lady. Waaw. Ah. Su nekkee president bi jigéen la naka la ñu war a oye jëkkëram. hey nah Brody. loolu man man man like I'm not into that Be like uh, topics uh, more, more, lolo, uh. bro. ok waa léegi xam nga yow you are the fastest rapper. léegi dafa am lu ma bëgg nga nga wax ma ko rek mu gaaw. fukki bukki bëccëg fukki buki guddi mu gaaw. fukki bukki guddi fukki bukki fuki fukki bukki guddi fukki bukki you are the fastest rapper. <laughs> respect yaa ngi baax booy xoolal jàppale leen ko booy kii suñu artiste la. tarap yaa ngi baax man all right man. yes suma gars yi Korka street talk la lii laa leen amaloon it was a nice show I really have fun hope you guys have fun Uh, we are urging all of you to come and sponsor and nam nga ngeen play seen advert yi ak yooyu noonu so Korka Street Talk la tey lu ma doon laajte rek mooy uh, it was very funny uh, but somehow tricky moo nekka pour nga wax benn word mu gaaw moo nekka fukki bukki bëccëg bëccëg fukki bukki guddi man sa pour ma wax ko c'est problème so dama tase benn benn man CDS lañ ko doon anyway mu omba rek mu naa ma ne Korka fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi ma ne ko hey loo maa ni ma laajteel nit yi nag mun nañoo wax loolu mu gaaw so anyway man sax I was really struggling pour ma wax ko but it was funny moo nekk fukki bukki bëccëg fukki bukki guddi soo ko naree wax mu gaaw du métti du yomba de ok ok another question ñu la tee uh, watermelon watermelon vegetable la wala fruit la watermelon is a fruit saro xaal fruit la ñu la wane vegetable la du vegetable de fruit la fruit waaw si fruit la bokka so ñu ñu la tamit if the president's wife is called first lady how about président bi lifinam naka a président bi su nekkee president bi jigen la jekeram nu ko wara a is first gentleman first gentleman lañ wara a president bo boo xam ne jigen la te jekeram amna jeker jëkkër ñu ko ooyee first gentleman so li la leen amono ci Korka Street Talk li waaye si loo nekk ah ngi nii rek yow yaa ngi toog ni mel ni ku ku amut liggéey xanaa jeexaluloo sa course bi man jeexal naa suma course bi waaye maa ngi bëgg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a seer maa ngi toog xanaa demuloo inko <laughs> lan moo inko da nga bëgg xam lan mooy inko waaw jógal ñu fii mooy inko soo ñëwee suñ place mhm. looy njëkk a bàyyi xel mooy mooy inko maanaam ING CO waaw kay am na nag ci dëkk bi fii mm. place bari ñu ngay jël suñu kolo bi di ko mbuboo waa pire pire ji fii la bu ko jaawaale mm. soo ñëwee rek seetal brand bi mm. lii mooy di impo si nekkee kapinta nga mm. maçon fiita mécanique bi sax kaa ñu dugg si biir kontaan naa de lii mooy inko Sou fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee da traffic light ñu ngi fa amee tamit beneen branch maanaam da traffic light am nañ fa beneen branch am nañ fa beneen branch ak Inco aduna bi mu ngi si sa